illallah inna wali wa ma tawfiqa illa billah wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa xalbi arshida asalaamaaleykum mbokki taalibe yi ñu ngi leen di bu baax di amal mbégte si guddi Laylatul Qadr bi daal di naan si ñu tàmbali guddi gi di ko màggal ak waa membre bi ak suñu mbokk dëkkandoo yi nekk si gox bi. fas yéene tàmbali liggéey bi liggéey tàmbali nañ ko programme bi mu ngi dox yaay tàmbalee nañ ko zikkar samfal kuréelu Baye gi nekk ci daara bi daal di liggéey liggéey bu am solo daal fi samfal liggéey bi rafetlu nañ ko bu baax a baax ginnaaw loolu tamit suñ Seex xasida yëkkati na fi xasida yu am solo doon roy Baye Omar Diouf ginnaaw loolu tamit kuréelu 3 bi bu gën a tuutànk suñu kuréel dafa na fi programme bu am solo kuréel 3 ci A bi tamit moo nekk nii di def seen prestation léegi du ko defee kon dañuy daal di dalal suñu gan yi daal leen di jox comme monsieur mel ni monsieur le maire ak euh, gars yi fi yëpp kilifa yi ñu daal leen di jox ñu sàng ay kàddu si liggéey bisimilah suñu monsieur le mu daal di sànni si liggéey bi ak jubbi jubbi léegi ñu jox si ay kàddu. bisimilah monsieur le maire. maa leen nuyu yéen ñëpp ñu nuyu waa en trois ñu nuyu daayira bi si organisation bi nag chaque année ñu koy euh, organiser lu yàgg la euh, seen mag yi la ba ñu créé woon daayira bi ba ñun tey jii si ba ah, de ñu nekk seen ginnaaw jàppale leen ba tamit euh, lépp lu ñu bëgg mooy liggéey seen Touba ñu fekk si leen si ba ndam lu ñu bëgg ak projet yi ñu bëgg def fii si Yaraax. comme projet euh, kër kër sëñ Touba bi fii yàlla mën ko allah ñun ñu mën ko fekkee te ñun ñëpp ñu participer si su neexee yàlla voilà. jërëjëf Amin rafet na yan saa borom dafa landam ak sutura gi am solo yal na ko borom bi jërëjëf. Ah, bisimilah du dañ jox suñu yaay bi mi Euh, Babacar Mbengue lu ko defee moom mu sànni kàddu si liggéey beeg taxawaay bi bisimilah yàlla. ñu ngi nuyu mbooloo mi di ziar ñëpp njëkk di sant suñu sëriñ muy Cheikhul Khadim mi nga xam ni moo tax ñu daje fii tey te di koy ñaan macha allah mu defal ñu guddi gu neex te lépp luñ fi jaamu suñu borom mu nangul ñu ko. jël kàddu nag ci turu monsieur le maire euh, muy Babacar Mbengue di maire commune bu Hann bel nga xam ne dafa voyagé nekkul Sénégal moo tax ñu ñëw teewal ko fii at mu jot itam dañuy ànd ak moom wax dëgg yàlla ñëw teewe bis bi di bis bu màgg lool ci yoonu murit di bis bu màgg itam ci yoonu lislaam ndax wax dëgg yàlla guddig Laylatul Qadr moom du dara lu dul fanaanee sant suñu borom rek te di sàkku ci moom ay ñaan ngir suñu borom defal ñu ay tawféex kon ñu ngi am mbégte bu baax teewal ko fii eh, di sant bu baax ñi nga xam ne bii ñooy daayira bi eh, yi nga xamante ni wax dëgg yàlla yëfi Cheikhul Khadim rek a leen ñor te ñu nit Cheikhul rek la ñu gëm kon ñu ngi am mbégte bu baax di leen sant itam di leen ñaanal yàlla suñu borom defal leen tawféex taysiir ak najaa yàlla am na ko mën na ko yàlla na ko yàlla def e, sant mbooloo mi yëpp e, sant itam ci turu maire di Babacar Mbengue mi nga xam ne moo ñu fi yebal mu ngi leen di sant bu baax di leen ñaanal moom itam ndax wax dëgg yàlla cër bi nga xam ne moom la moom ci dëkk bi xam ngeen ko te jox ngeen ko ko kon nag ñu ngi leen di sant ci turam ak turu délégation bi nga xam ne yëpp moom la ñu àndal sant yi tamit suñu wasila muy Cheikhul Khadim bu baax a baax macha allah. ah jërëjëf yaa booy kàddu yi am na solo lool euh, moom moo fi euh, représenté Babacar mi ngi nekk adjoint kàddu yi am na solo yal na yàlla mottali taxawaay bi rafet na lool macha allah jërëjëf. di ñaan ci barke Cheikhul Khadim barke Soxna Maymuna Bintul Khadim bis bii lu ci waay ñaan yal ko yàlla nangu ndax ñun murid amul lu may lii rek di ko sant Serigne Touba ndax Serigne Touba rek lu ñu gëm dëkk bi yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na doon taalibe sëriñ Touba rek ba keroog ñu dem Barsak. sante ko Serigne Touba beug rek ci barke khassayine fi jang yalla yalla barkel, ci barke Cheikhul Khadim jere jeuf Bismillah, diko defé dañ jox suñu yaay ne Ndiaye nek jëwrinu soxna daara soxna jaare nek ci si mo nek seen jëwrin du defé diko jox mu sànni kaddu ci guddi bismillah bisimilah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin barke khadim rasul maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax waa daayira Minahatoul Soudour di leen xamal ne seen liggéey bii mboolem ñun ñi seen yaay dëkk Antrois ak dëkk yaraax gépp ñu ngi ciy bége ñu ngi leen di bëgge bu baax a baax di kontaan ci yéen di kontaan ci lii ngeen def di leen ci ñaanal yal na jëm kanam te ñu ànd koog yéen maa ngi sant yàlla nag di julli ci yonant bi di sant ñi ma àndal yëpp muy daayira maam jaara maa ngi ciy jiital Adja Soxna Mbay ndax mooy sama secrétaire moo topp ci man ajaratu Maguette Diop ci délégation bi aja Penda gay Ami Diop maa ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm di wax ne daayira bi yaatu na lool ndax gis nga ko ëpp nañu fanweeri nit kulim juum dama lim ñi ci bopp bi rek di jiital sunu jawrin yi sëñ Saaliw Jaañ di ci teg am sa gasama di sant suñu yaay ji bu baax muy ajaa ay dagay ndax moo jiite lépp ñun dañ koy jàppale rek gay di ko jëm mag may sant ñëpp di leen gërëm di gërëm jawrin jaañ di gërëm sunu xale yi daay yi xale yu ndaw yeeg mag ñeeg jànq jeeg waa dëkk beeg yépp di leen gërëm di leen xamal ni ñun suñu xol sedd na bu amatu ñu dara lu ñu wax lu du topp ci seen ginnaaw rek lu ngeen nekk suba ba ngoon jot ñun ñi ngi ci ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal yàlla ñëpp jàmm di ñaan kër sëñ Touba googu ngeen di mebet yal na ko yàlla yeggale te mu fekk ñu fi ñun ñëpp te ñu jariñoo ko ci barke sëñ Touba kontaan nañu suñu xol sedd na. jërëjëf Yakhine kàddu yi am na solo yal na yàlla nangu ñaan. nga jàpp ne lépp si barke guddi gi bu ko defee dañu jox suñu yaay soxna May moom moo nekk jëwriñu soxna Kiné Ndiaye si soxna jaare bi mu sànni si ay kàddu dañu jox suñu yaay soxna May moom mi nga xam ne mooy jëwriñu adjoint jëwriñu daara soxna jaare yi bu ko mu sànni si ay kàddu bisimilah Mbaye asalaamaaleykum daayiratul Minaa bi Sidoot maa ngi koy wax Koro Kine Ndiaye ñu ngi leen di ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di leen baal ak leen balu àq di ñaan seen daayira bii yàlla na bokk ca daayira sëñ Tuubaa gën a yëkkati ca kaw li kaw am nañ ci yéen yaakaar lool yàlla bu yaakaar tas yéenay sunuy doom te da a xool fi seeni yaay aw rek ngeen aw rusloowu leen nu benn yoon nun daal am nañ cant goo xam ne am na tàmbali waaye amutub yamukaay ñu ngi leen di sant daal di leen sant yàlla na leen fi yàlla bàyyi ngeen sokkorloog seen yaay yi bañ ñu weere ka weri fu ñu toll nag ñu ngi leen di ñaanal di leen gunge gunge nag yegg baaxu ca waaye na leen gunge bañ sore ñu ñaan yàlla nag jiitu leen ngeen des ci lu ñaan yàlla na yeex kër sëñ Touba gi ngeen semb yàlla na ci yàlla sëriñ Touba teg loxo teg ci bëtam teg ci tànkam ba li ngeen ci séentu lépp ngeen am ci lu kawe seen yoot yàlla mën na ko yàlla na ko defal doole leen wér ak kàttan ak passeef ci barke Xaadim Moustapha jërëjëf Mbaye kàddu yi am na solo yal na yàlla na mu ñaan tey jàpp ne lépp sayrun baatinam barke borom Tuuba defee dañuy jox jëwriñ Adama Lo moom moo nekk jëwriñu soxna yi si daayira Munawwirus Sudûr bu defee dañ koy jox mu daal di wax si bés bi bisimilah jëwriñ Adama Assalamualaikum. sutura ba duñu xàmmee ki joxe un million ak joxe junni ndax yow mi jaayante ñëpp dinaa joxe un million ziar ñëpp matricule lañ lay wutal boo xam ni di jiital sama bopp ci soññe moom moo jaayante un million yow mi jaayante vingt cinq mille wutal matricule boo xam ne du diw moo jaayante wax ne rek liñ ci jublu mooy ku nekk ci ñun di dox naa nga ñu som ci am di ñaan kon na ci jëm kanam na ci ñëpp taxaw. ndax di soññe bu baax rek comme ni ma di soññe bu a baax bu nga moom lañ doxal liggéey bi. di soññe tamit ci jumaa ji juróom-ñaari weer. kër sëñ tubaab yi nga xamante ne moom lañ taxawal. Mm. dajale nañ ci nekk ci bopp bi di ko ñaanal wér fukki million yooyu ñu fi dajale ci weer yi. ñu koy ñaanal yàlla ñu fondement jumaa ji ba yeggale ko. junni yi taalibe sëñ Tuubaa yi joxe ak ñaar téeméer yi joxe ak yi joxe di ko ñaanal di ko ñaanalaat loo yàlla kenn kenn kenn nettali kon nag di ko ñaanal wér ak gudd fan man de Adama Lo maa ngi koy sant sëñ Modou maa ngi koy sant di ko sant waa daayira bi yëpp di sant eh, jëwriñ Jaay maa ngi koy sant bu baax a baax nga xam ne li ñu nekk ni yombul ñaan ñu gën a jàppal dem seeti ku tedd ko suñu doomu Sëriñ Touba ju tedd ju baax ji ñu koy wax sëñ Abdou Khadre mu tudde ñu mu naweerul su dor ñu ñew fi di gor lu jema liggéeyal sëñ Touba ma and ko ay xalé ñi nga gis ni boba ñen ñu bari ñu ndax loolu nga xamni ëpp na wéré at waaye fo foo xamante bi fa fuma ma foogoon daayira bi romb nako fukki jinn yoon wax deug yalla kontaan na ci taxawayu ñi seen jambar ah ci seenu talibé ci seen yar ci seen organisation ah ci seen ci seen ci seen andando jiital kenn topp ci moom lu mu wax ñu nekk ca loolu lu rëy la lii dong la murit am lii rek la murit am daa daayira bu mel nii ah man de wax dëgg yàlla sama xol sedd na lool sama xol bi beesaat na lool ci taalibe déggaat naa fi xasaayit bég naa lool ndax man de lii dong moomu mën a bégal man kontaan naa maa ngi leen di ñaanal gudd fan ba seeni doom seeni sët di leen wax naan yéen a yoroon daayira bi waaye léegi xool leen fi mu egsi nii ngeen ma def rek yàlla na leen ko seeni sët def nii ngeen ma def naan ma daayira bi nga fi sosoon moo mel nii tey noonu tamit yàlla na leen seeni sët raw fuuf ba de ba naan maam maam yéen a ko sosoon waaye gis ngeen fi mu egsi raw na fuuf fa ngeen ko rawoon fa ngeen ko defoon di jaay sa jër jot yàlla dolli jàmm dolli xéewal képp ku ci bëgg a def dara yàlla jàppandil xéewal yi dolli sutura dolli àndandoo bi musal ñu seytaane wasalaamu a wa rahmatullah barke borom Touba amiin jërëjëf Diorin Ba Ablaye Diagne moom moo nekkoon Diorin mu naan juróom ay euh, jamonoy 89 moom bisimilah. ci kaw loolu nag maa ngi sant bu baax sëñ Modou mii fi teew teewaayu sëñ naa mañ daan àndal sëñ Seexuna danaan taale otoom danaan jógee ca Touba ñëw ba fii fekke si lu ñu ne mu ne ca léegi moom bi mu xamee loolu Touba la muy xat-xat yëpp bari na ay programme te moom dafa bëgg toog ci jumaa ji toog ci wetu sëñ Muntaxa ca la nekkoon waaye dafa xam ni kóllëre gi moom dongoo ko moo ko mën a matal mu bàyyi li mu doon def yëpp ñëw ànd koog ñun moo tax ñu koy gërëm di ko ñaanal musut bàyyi mbaw fan te dese barke bi waaw yéen tamit kóllëre gi ngeen am ba taamu ko moom ngeen invité ko loolu tamit kóllëre rek la yàlla na ko yàlla fay jërë ngeen jëf. amiin amiin jërëjëf suñu baay bi moom borom passif la Mourou Sadef la Baye Abdoulaye Diagne nekkoon jën bu njëkk. ñu joxoon ko ndigal si jamonoy Cheikh Abdou Khadir ñoom du ma juumul 89 kon moom moom daal moom liggéey bi si moom la tàmbalee. waaw ñu ngi koy sent di ko gërëm di ko ñaanal di dellu di ñaanal kilifa gi mu tudd léegi sëñ sëñ Cheikhouna ibnu Cheikh laat moom jotaay bi daanu ko wuute saa ñu daan mos a woote day taxadd rek dafa daan teew daanaka daaw ak ren yëpp nag saa borom def ko mu jóge fi kon ñu koy ñaanal bu baax saa borom doolu koy xéwal tawféex

ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di leen ñaanal yàlla ci barke guddi gi yàlla yokk mbir yi yokk programme yi yokk yitte ji ci nit ñi ba bala ñu ko fekk waat déwén daal mu doon tele di jaay Cheikhul Khadim barke Laylatul Qadri am naa ni nag euh, guddi gi mom mo woné bopam ndax bu sun borom waxé ni guddi la go xamni mo gën junni weer guddi go kon présentation bi nga xamni ci ni am na ko borom a ci def te bokku na ci ay darajaam it li sun borom wax ni mbir yëpp ci lañ koy dogal ci guddi gii kenn ku ci nekk fëy yi nga xam ni moom la malaake doon bind say jëf ci guddi gii la jébbal yàlla fëy yëpp mooy alxuraan wax ni fiihaa yufraxu kulla amrin hakimin amran min indina inna kunna mursalin mu doon guddi goo xam ne dafa nekk guddi gu làqutu lool ndax ñi ko xam ñu néew lañu ndax yonent bi dafa wax nañ ko seet rek ci fukki fan mujj yi waaye ñun nag sëñ Tuubaa mi nga xam ni moom allamani laahuma lam yura la wax xattu xayri wala xayri lan yara man dama am xam-xam boo xam ne man rek ko xam moo ñu tënkal laylatul xaddiri jàngal ñu tamit bis bi nga xam ne ci lay nekk ak guddi nga xam ne moom lay doon te guddi yëpp lay nekk bisu alxames nekk guddi ak ajjuma tey bis bi ci la bokk mu doon guddi goo xam ne it yaakaar naa ne ku ko fekkee ku ne loo bari bari ay ñaawteef guddi gi àttan na ko ci boo ko jégguloo waaye ku say balance ci wàllu tuyaaba wooye foon it war nga ko mën a diisal ba mu ci guddi gi ndax guddi gi attan sëñ Saliou xana di santaat di soxna mam jaar mi nga xam war na waxtaan wax wax ju am solo ci l'islam rawati na ci jigéen lim ci jangale lepp dégg nañ ko suñu nopp waye ñun liñ ci wara jangé ñun ñu doon déglu moy xam-xam dekkul fenn amul ko sante ndjay amul ko sante mbacc ak ko sante Buus ak ku sant bëgg-bëgg ak yitté rek moy taxa am xam-xam ndax mi bokku ton ci programme bis jot mu mëna tok fi ci kaw di wax yarax gépp di ko déglu muy leeral li muy leeral nit ñi yëg ko ba mu jaral leen di jooy jaral leen yëkkati seen alal di ko jox te loolu yëpp li ko may mooy bëgg gi ak yitte kon nag ñu ngi soññ ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ginnaaw ñiy jàngale ñi ngi fi am na nit ñi jàngale te jamono ngi ñëw boobu ñu am bëgg a jàng boo xañ na sax jot dootu lu ko mayiti kon ku am jot rek te ñuy jàngale ñu lay soññ rek di la xamal ni lu yonent bi wax rek talabul ilmi wala bu si sàkku xam-xam jar na dem ba Chine ginnaaw loolu nag noo ngi sant waa daayira bi yëpp membre yëpp A ba Z ñu leen di sant di ci jiital jëwriñ Jaañ ak ñu nekk ci ginnaawam ñëpp di ñaan suñu borom mu nangul guddi gi defal ñu te defal ci ay di leen bi TV sëñ Saliou maa ngi lay sant di la ñaanal tawfiq sëñ Touba di sant sëñ Youssou ak mboolem kilifa yëpp wasalaamualeykum wa rahmatulah. incha allah sëñ Abdoulaye kaddu am na solo di sant di la di la ñaanal